muy tawfeex ju rëy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 أنيت اليوم عبدا بذكري وأن يطوفنا روى النار وسبا نبس لقى لله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب الهدى سربا أرتل ما دمت حيا وأكتفي وأنفي بإبليس علمت دبا الجاه وهو مؤمن وواسع له الملك ثم الأمن والآل قد سبا خرجت بفضل الله من كل باطل وفارق تدبيري به دفع والجلبا رضيت به ربا كريما مكرما وقال الهدى والحرب والبار والتلبى جزائي على المولى اسمي وأودع القلب نويت أن أرجع لتوبة بإذني وأودع اسمي وأودع القلب حكيم له ملك عوز هوى الخربان نجاتي من الاعداء والبار والبلاء غريبا وحيدا من عزيز ملا الجربان Ici, il est venu présenter aussi sur cette même délégation. Là, ici, c'est Seigneur Ahmadou Mbaké. Lui aussi, c'est le petit-fils de frère cadet de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà, donc, euh, là, c'est un ancien ministre de la République du Sénégal qui est venu de la France pour accompagner euh, la caravane. Ici aussi, c'est une Cheikh Hadim Fall. Une Cheikh Hadim Fall, c'est le petit-fils de Cheikh Ibrahim Fall, c'est-à-dire le grand disciple de, de Cheikh Amadou Bamba. Voilà, donc ceux qui sont venus, il y, a, il y en a des femmes qui sont venues, des petits-fils de Charmant Bamba. Il y a aussi les notables de Libreville, les chefs de Daïra et les autres et la communauté qui sont là, qui vont voyager avec nous. Les excuses de Monsieur le ministre, qui aurait voulu être là, mm -hmm. vous accueillir et euh, vous souhaiter la, une bonne route. Mm -hmm. Malheureusement, il a dû aller à rejoindre le président de la République à Franceville mm. et il ne pourra pas donc être ce matin. Il m'a demandé de le représenter ce matin avec les conseillers euh, derrière moi pour d'abord vous signifier que cet acte, ce matin, on veut le poser pour marquer le, le, le départ, le nouveau départ que le, le ministre souhaite avoir avec euh, les Mourides, avec le peuple sénégalais, Et euh, avec la caravane touristique qu'il a mis en place, faire en sorte que la caravane touristique et le pèlerinage soient vraiment deux, deux, deux faits importants pour euh, le peuple gabonais et pour le peuple euh, sénégalais, et notamment les Mourides. Il veut vraiment que ce nouveau départ fasse en sorte que la mémoire du, du cher Menou Bamba soit respectée et honorée, et faire en sorte que véritablement l'expression de, euh, de, de, la grande fierté que le Gabon a pour euh, avoir accueilli Richard Menou Mamba s'exprime à travers ces deux, deux, événements importants, que ce soit la caravane touristique du Gabon, euh, le pèlerinage de Mayumba. C'est vraiment une, un honneur, un honneur extrême d'accueillir euh, euh, le calife aujourd'hui. Pour, euh, et il souhaitait vraiment qu'on traduise euh, vraiment l'importance et la suite qu'il donne à son voyage euh, vers euh, Touba. Euh, et c'est pour ça qu'il nous a demandé d'être présents, et pour vous souhaiter un bon, une bonne route et faire en sorte que le pèlerinage se passe très bien et que vous puissiez aussi profiter des sites que nous avons mis en place pour la caravane touristique. Donc je tiens encore à vous remercier et vous souhaiter une bonne route et un bon pèlerinage. Je voudrais simplement dire que cette cinquième euh, édition de la caravane de Mayumba sur les traces de Cheikh Amadou Bamba sera marquée par l'ouverture officielle du pèlerinage euh, de Mayumba. Avant, les années précédentes, on allait à Mayumba, euh, on était autorisé, mais ce n'était pas officiel. Cette année, euh, l'Église catholique qui a hébergé Cheikh Amadou Bamba pendant cinq ans à Mayumba, à Mayumba va nous autoriser officiellement cette année de euh, d'exploiter le site où il vivait. Donc euh, c'est historique, historique et cette délégation, elle est conduite par euh, le fils aîné, euh, le fils euh, du calife général et nous allons aussi euh, euh, euh, noter ici que le calife général a fait sept ans, sept mois, sept jours en terre gabonaise. Et Mayumba est une, le Gabon, en particulier Mayumba, est, ce sont des, c'est un pays sacré et Mayumba c'est une ville sacrée pour la communauté mouride. Donc, euh, nous remercions aussi euh, le ministère du Tourisme euh, qui nous accompagne avec la présence du ministre Atouba euh, qui a rencontré le calife général. Euh, c'était un événement aussi historique parce que nous n'avons jamais euh, connu cela et ça nous permet aussi de, de, de développer le tourisme religieux en terre gabonaise à travers la caravane sur les traces de Cheikh Amadou Bamba je vous remercie. jërëjëf maanaam sëñ bi maanaam ñoom comme ni ko waxee mooy moom mi ministre bi yebal ñoom ñoom lañ doon liggéeyal ci weer yi yëpp ci loo xam ni luy jàppale liggéey bi rek ak luy feeñal mbirum sëñ bi ndax sàkk woon nañ ci njiitu réew yi Gabon nu ñuy def ba barab yi sëñ Touba nekkoon ñëw ci loxoy murid yi ba loo xam ni xañoon nañ ko ci benn barab loolu ñu mën ko koo delloo loolee nag biñ ci liggéey bindoon nañ leen ay lettres yoo xam ni dañoo laajoon ay barab ci Mayumba ak Lambaréné ak barab yoo xam sëñ bi jaaroon na ci ñu mën koo defaraat maanaam mu doon loo xam ni ku fi ñëw bu ëllëgee si biir nga fekk ko fi loolu nag moom moo sababoon ministre bi nga xam ni moom moo ko yebal ñëwoon Touba ci semaine ba la ñu génn seet si bi àndoon na nag e-, ak évêque bi nga xam ni moom moo yilif église muy laa bi nga xam ni maanaam ci la ci la Mayumba dépendre nga xam ne église boobu église boo xam ne bu fa yàgg la ndax at mi sëñ Touba sañcee Touba 1888 ci lañ sañcoon église boobu nga xam ne foofu la sëñ Touba nekkoon juróomi atam yooyu moom labbe boobee nag àndoon na ci délégation bi ak maire dëkk bi maire dëkku Mayumba ñëwoon na boo xam ni wax ni ma ko waxee woon Touba sët la ci Samori ba ñuy ñëw tëggalu nañ caabi dëkk ba niñ ko baaxoo defee ngir andil ko sëñ Mountakha ndax nañ dañ ne xam ne du ñëw waaye yow booy ñëw mu mën la koo jox nga indaale ko Gabon ba bu ngeen demee ngeen xam ne yamaluwul leen fenn am ngeen seen wàll ci réew mi waaw bu ko defee daal kon euh, ñoom ñi sëñ bi bindoon na leet jox leen ko ngir ay ay remerciement sant leen ci bu baax a baax ñoom nag loolu moo waral rek ñu ñëw ni euh, monsieur le le DG directeur de cabinet directeur de j'ai transmis un peu ce que vous avez dit au Cheikh. Il est l'heure de départ peut-être, mais, mais il a compris quand même la venue du ministre. Lui-même, il était présent à Touba. Donc, vraiment, nous, on ne vous pas assez. On va travailler, on va continuer le travail qu'on a commencé avec, euh, avec ma, ma, nièce, Madame, Madame Moussé, et toute l'équipe. Soyez rassurés que toute la communauté mourite, quand même, qu'on va pérenniser. Vraiment, vraiment, nous vous remercions. Nous vous remercions. Et puis, euh, on va dire seulement un mot de, de, de, départ. Nous, dans nos, on, demande la bénédiction au cher. Si ça vous arrange, on le fait. waaw fi fii nu taxaw ahlu Badrin kiram min na ko am na kun fi daan fekk mooy kooku sëñ Moussa Ka wax ne ko doxin ba dafa simple mu jekk ay peer bu daan wax da koy ndànkal te baat ba day riir da daan muuru di yor yett kaala yu joor rawaan yaa ngi ko daan fare wàllu nday joor bu ñuulaay ba ne lar xet sikkim ba ni laas di saflaari wurus moo ko jekk ay bu nekkul di bindit boo ma ngay yëri mool bu bët yeey nelawit xol ba moom ma ngay xool bu cër yeey nelawit ruuga dem aras moom xanaa war na buraax mbaa mu war ca ay soom te lay laa du ko tee dem ca diwaan diiwaan ca passion ngañ sàkkar rijaale lay naan borom taar bile semmal na saaru mbar daan tabaaraka ma jàngal ko saaru furxaan bu injiil ñëwaatoon mu mel ni Moussa bu tawriit ñëwaatoon mu far di xiisa sa géeju xikam raw na géejul xumaan sa waxtaane hadiis semmal na nuxmaan xasaay bi nga feeñal mu ne su koo jeel ajaay bi nga feeñal mu ne su koo móol koo tofli sa lor yi tofal ko busra mu tàggoog loru duniyaa kasaako uxra sa mbootum xalimaa raw dabbu su way dee ya nga tawoon na xiisa cëmmal koog malakoot lay fanaane gàmbaal malaaka yi jabaroot ya far ko wër di kooku lañ jëlee woon ndakaaru mu dem ndar ndakaaru Konakiri Grand Bassam Lodj Mokel Batako Abarisit Kutumi Dawme Booma wàcc fii ci Libreville kookoy sëriñu Cheikh Ibrahima Fall kookoy sëriñu Cheikh Ibrahima Fall murit fii la ñuy waajale màggal gi waaye ren na caravane bi am na gan sëriñ Cheikh Khadim Fall moom sëriñ Mout Abdou moom sëñ Mortala moom maam Cheikh Ibrahima Fall moom rek la tubaab bi xool maamam ba yàgg naan ko Il incarne à sa personne de toute la gentillesse, la se l'élégance, la prisation, signalement très noir de peau, taille au-dessus de la moyenne des Sénégalais, frontaux élargis, chevelure crépue et bourgeois. sëñ Moussa Kane ko ya fekk fekk Kane ko mos nañ xibaar yi jibbaloom bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wa ab murit di jaar ba raw pexe marit ba am ngërëm bari murit ba doo tuddee tax taxi mu daal di dem Taïba xaar ngir dégg Bamba di fa xaar seet na Serigne Taïba Ndaxaar ci njàng lay xamee pexe waa jàngoo gi kookoy borom njañ lu dekk la kon na gars ñoo ngi nii Libreville fu nu jëm maa yomba 819 kilomètres pour les traces de Cheikh Ahmad Bamba jërëjëf Serigne Touba est-ce que borom Touba borom Touba amut morom lu fi xew rek dinañ leen ko wax. asalaamaaleykum ñoo ngi ziyaare ñëpp. di jiital si ziar bi suñu yaakaari tey ak ëllëg Cheikh Mouhamad ba Bachirou Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ah, mbokk taalibe yi mbokk jullit yi su ngeen gisee ñu ngi taxaw fii si baie di waaj maanaam pour dem Mayumba di caravane Mayumba topp jaar jaari Sëñ Touba fii si Gabon ah comme ni ngeen ko gisee rek mu nekk wàccaay boo xamante ni bu mucc ayib ginnaaw bi ñu si sunu yaakaari tey ak ëllëg Cheikh Mouhamad Mountakha Bachir Mbacké jox nu ndigal ñaanal nu yabal nu tamit ñu yaatal liggéey bi dem si mboolem kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk Touba Kër Sëñ Touba yëpp ñu dem fa tamit wax leen liggéey bi xamal leen ko ñu ñaanal nu si liggéey bi tamit soññe si kon gis ngeen ni tey jii mooy départ bi ñoo ngi fii si baie de ah, ñu ñëw tamit di sant yàlla ndaxte liggéey bi de am na ay jéego yu am solo lépp rek di tawfiixi sëñ Touba ni sëñ Muntaxa ni mu nu ko ñaane woon ni di ngeen si dajeek tawfiixi sëñ Touba di ngeen si am ay ndami ndam ndam yi nag weesuwul tey jii bu ngeen gisee caravane bi nii ministre du tourisme moo ñëw nii moo ñu recevoir fii nii ñëw di tàggatoog ñun di ñu souhaiter bon voyage kon wax dëgg yàlla jàpp tamit si liggéey bi jox nu ay bus ñoom wax dëgg yàlla kon ni ngeen ko gisee woon rek ñu def délégation fii jóge fii dem ba Touba dem ziyaare sëñ bi yóbbul ko ay tawfiix yóbbul ko tamit li nga xam ni mooy caabi maayumba kon kon gis nga ni liggéey bi wax dëgg yàlla am na tawfiix euh, kon ñu ngi ñu ngi ñoo ngi ziyaare ñëpp di si woo fu taalibe nekk ñu ngi lay woo nga ñëw nga waajal bis bi nga xamante ni chaque année ñu ngi koy def di topp jaar jaari sëñ Touba ak projet yi nga xamante ni moom lañ waajal sa maayumba fa nga xam ne fa la sëñ Touba sampoon ñeent bantam ya ñu simpi ko tey jii sunu yéene mooy murit yëpp rek ñu waaj dem tuuba sampal ko fa ñeentu sooro ba juróom ndaxte loolu di nekk si nekk li nga xamante ni eh, sëñ bi di di di di di di dina kawe lool waaw ndaxte. ginnaaw loolu mën nañu xam euh, programme bi nan la nar a tëddee bis yi ñaata bis la ñu a toll nombre de personnes yi par exemple ak programme bi itinéraire bi combien de kilomètres la ñu war a daw pour ak bu ñu waaw programme bi ni muy tëddee nii ñu ngi fiy départ rek ni ngeen ko gisee démb programme bi commencé mu nekkoon cérémonie officielle bi fii si Libreville tey jii bu ñu xëyee nag ñu ngi war a départ pour dem Mayumba bus yi euh, nombre de bus yi toll na fi mu nekk nii si juróom-benn jàpp juróom-ñaari bus. nombre oto yu ndaw yi moom moom mënuñ koo wàññi ndax gis ngeen mbooloo mi ni mu baree donc tawfeex loo euh, yaakaar naa ni euh, daaw. bi ñuy dem tolloon nañ si ñeenti biis waaye ren bu ñu demee ba toll si bis nombre bis yi ni kon ñu gis ni liggéey bi wax dëgg yàlla mu ngi am mu ngi jëm kanam comme ni ngeen ko xamee rek ndaxte liggéeyu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom ay mbiram amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la jëm distance bi tamit euh, Mayumba dafa sori huit cent kilomètres di war nañoo parcourir huit cent kilomètres en passant par Lambaréné euh, ñaari fan nag lan fay def incha allah bu ñu demee tamit foofu tamit autorité ya ñu ngi nuy xaar foofu noonu ñoom tamit ñu ngi nuy waaja di nu xaar ak évêque baak lépp maanaam euh, euh, labbe baag évêque ba nga xamante ni ñoo ñuy dalal sa mission ba autorité bi nga xamante ni mooy maire bi tamit ñu ngi nii xaar war nañ fa am cérémonie officielle jàngkat yi nga xamante ni tamit ak waxtaankat ak conférencier ñëpp rek programme bi ñi nga xamante ni ñi jóge Sénégal incha allah suba programme bi noonu lay tëddee. متأمل